ay nit ba mu dul jeex gis nga bu déposé jotee gars yi danañ déposé ji te buñ déposé buñ affiché danañ campagne yi. mais est ce Bokk Yaakaar waru ut plan B. waaye déglu ma wóorul ah, déglu ma da nga may da nga may déglu da nga chaque entité su ko neexee moom mooy évaluer boppam jël ay risques am ça n'engage que les composantes ci bokk ñu bokk daayira bi bokk. association bi ñoom la engagé ñoom ñooy toog jël seen ay risques. comme ni ko waa PDS doon defee ñoom ñu ko xam ne Karim Wade du du du du nekk candidat mais terul ñun moom mooy ñoom mooy seen candidat kooku c'est leur liberté association la ñu ku ci bokkul yow waroo leen a imposer wu indiqué li ñu war a def yow fi nee ni benn bakka yow yow yaa yaa yaa leen war a wax li ñuy def. parce que yow bokkoo ca bokkoo benn bokk yaakaar suñuy def suñu réunion benn bokk yaakaar duñ la woo. da ngay xaar ba pare ñu génn suñ communiqué bu ñu ko génnee nag nga am droit interpréter ko mais du yow yaa ñu wax li ñu war a def ñun ay kàngam moo fa nekk ay responsable ñoo fa nekk bi ñuy àndandoo laaju ñu la sa xalaat ñun ñoo toog def suñuy parti président Macky Sall wooñu ñu ne ko kaay dañuy àndandoo di def suñuy réunion di dem bu ñu àggee ci election yi danañ toogaat seet ba xam est-ce que président Macky Sall ñuy def candidat ou bien est-ce que la ñuy def candidat luñ fa décidé kooku li ñuy wutal parrainage mu dem déposer ko conseil constitutionnel mais kooku c'est la il faut l'accepter mais ni ni ma gisee ni ngay gisee légui nak bu togué ñun jubóowuñu ci interprétation parce que fi ne nekkuñu ci ay ay tripartage de constitution au Sénégal dégg naa ay gars wax naan la xew de dëkk la la xew ci yeneen dëkk yi gars yi dañ dem di tripoter constitution yi pour changer ko pour am fii nag tripoter wul on laisse le conseil constitutionnel dire le droit suivant la constitution bu démé nak lu ci wax ça s'impose à tout le monde soit vous acceptez d'être dans une république normée ou bien les verdict à la place du juge à la place du conseil constitutionnel à la place des députés à nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Quel def ñaari mandat yu mais mais de ne pas d'être juriste pour xam ko. mais xam nga mais kiko wara wax wax ko conseil constitutionnel soyez régalien Qui wara wax. dana ko wax te bu ko waxe lu mu wax man ci la and tay bu newon candidature diw dudu kelke baxul mani baxul baaxul su ne baxna na ma ni baax na wax yow dudu ma ngi yow fini ñoo ngi ngay wax ci affaire conseil conseil constitutionnel ki bi pendant mandat maa ñu ci man nañ fay wax fi ba 2024 hmm suñu wax joju ñu wax yépp amul sens fi lay mujj bay dem defar sama sama sama sama parrainage defar sama cutis jël sama certificat nationalité dugal ko ci ba enveloppe dem jox ko conseil constitutionnel est-ce que li ngeen war a wax mooy comme wax ji mënta tere li war a nekk nekk mooy déposé ji est-ce que jar na rey nit. beneen bi des liberté individuelle la yow boo ne woon da ngay dem da ngay jël enveloppe doo ci def dara dara dara dangay ngay bind duut kulba rek dugal ko ci biir enveloppe bi soo ko bëggee def man awma droit ne la bu ko def. dama naan demal def ko boo demee ñu boo demee ñu yëpp ko def ko ci moom Thierno Lo mi am na ambition. nekk président de la république 2024. déglu ma contenu de mon parcours. Hmm. et compte tenu di ma xamee Sénégal xoolal yalla suñ borom mi nga xamné bi la mooy jël ben doomu adama da koy jaarale fuko neex. Hmm. def ko président de la république. Yalla suñ borom bu gissene lool mo gën ci man gën ci Sénégal yalla na défal ko ma président de la république Sénégal. mais dañoo sabab quand même déglu ma wax la tuuti sabab bi yaa ngi dox. sabab bi may def mooy. sabab bi may def xam nga Khalifa Sall nee na candidat la. xoolal kii euh, Abdourahmane Diouf nee na candidat la. man may laaj ndax Thierno Lo candidat la. man damaa nekkul di copier ci xalifa Sall ak Abdourahmane Diouf li ma nekk mooy ànd naa ak ay doomu aadama yoo xam ni maa ngi liggéey pour l' intérêt Sénégal. Hmm. maa ngi wane un comportement boo xam ne bi nit ñi dañ xam ne damay jubal te lekkuma xaalu askan wi jëluma seen suuf jëluma seen xaalis seenu bourse état ma mayu leen ko sumay doom ci ñoom ñëpp ñu ngi jàngi bitim réew jëluma dara loo xam ne li doomu góorgóorlu moo ko waroon a jël ma jël ko jox ko suma doom mbaa ma jël loo xam ne góorgóorlu moo ko waroon a am man ma jël ko muy benn beneen bi des ma boole ko gëm yàlla bis bu ma toogee ba gis koo xam ne kii wóor na ma ni kii mën naa ànd ak moom pour que mu nekk en kii wu Sénégal mën na maa ànd ak moom pour Sénégal bu ma ko gisut bu ma ko gisut ca réew mi nar a jël yenn pant yi ñaar a dem ci yenn gouffre yi bala mu faa dem ma yëkkat sama loxo ne mën naa koo sauver li ma leen di wax man du ma koy waxantu ay principe lay doxe boole ko gëm yàlla ak di assumer li may wax mais kenn duma taxa koppiye ak di dugg di wax yoo xam ne yii wax gu jotagul su ma demee ci benn bokk yaakaar gii ñu taxaw fi génn fi benn candidat bo xamni bi woor na mu woor yalla ne lim wax ne mom na la def ca parce que bala ma and ak ben candidat ben bokk ak ku mundi don ma yo dañ tok waxtan wax xale limu gem wax le limay bañ soko nango ñu andando wuti rew boko nangul may keul sama loxo laaj ko lu leer la yow yaay waxtan ak Macky Sall Macky Sall ñoo ngi waxtan tout temps Macky Sall ñoo ngi waxtan mais fi waxtan ak Macky Sall len dong la man Macky Sall duma koy wax limi def duma koy téré limi def man président Macky Sall buma togué ak mom dana ko man buma toge mom sax man musuma toge mak sal sax bok sama problème bop. mi ngi may dana suivre internet bi la nak musuma toge mom laj ko poste musuma toge mom laj ko poste pour sama wa parti heure buma toge président mak sal dama fay yobbu yep yep damay dem ba genn man waw man waxana man aw bëgguma dara ou bien yoruma parti comme ni sama boy wax naan ministre bi bëggul dara duguna na nit ko bëggul dara amul mais buma ma problème Sénégal momay jital ba ay nit la fay wutal ay audience yo xam ma leen xolal sama bop ba xamni ñi mën na ñëw pour fertiliser limi def jariñ Sénégal mu bëgg ñu jox leen comme ñun duñu choisir les meilleurs d'entre nous man buma ma c'est certains meilleurs d'entre nous damay dem wax ko président Macky Sall na leen wo pour que ñu ñëw jappelé ko parce que xam ko jappelé jariñ ba mi am dana rogalaat ba ak ci man agsi ci samay mbokk agsi ci wa Sénégal gep lolu motax may théoriser intérêt général

ku bëgg a jugé nag nga jugé ma ci loolu mais kenn duma ma jugé ci naafeq ak di tagaté ak dox wax dëgg ak di wutal président ay non suma sañon tay ji toute l'opposition sénégalaise les compétences yi ci nek yépp parce que Serigne Touba dañuy ñoo ñu and ak président Macky Sall ñu liggéey réew mi défi yi interpellé de par le monde toute compétence sénégalaise war nga mëna taxaw ñoo àndandoo pour fajj ko li ñu war a opposé mooy ñu defoon un programme programme bi opposé nous mais xam nga di di wut ay poste ay position de pouvoir dama bëgg a nekk président damaa bëgg a nekk lii damaa bëgg a nekk député damaa bëgg a nekk eh, maire di tax ba ñuy toog ay bakkan di wadd ak di reyante loolu bokkuma ci tey ca encouragé wu ma ko Sénégal grande puissance la en ressources humaines de qualité yàlla suñ borom jël ñu néew ñu dem leen Inde ak Chine ngeen lekk fa mu ni Sénégal gi laa leen teg li ngeen di dunde maa ngi leen ko defal ci biir suuf si kon jël leen seen ñaq ak seen xam-xam ngeen tibb ci sur suuf si transformer Sénégal ngeen dund fi du ngeen dem feneen kon loolu bu ñu ko defalee monde bi foo dem mi ngi am ay problème yoo xam ne état yi xoolatuñu droit xoolatuñu dara seen ay intérêt d'état la ñuy xool nga am ay compétence am ay ressources minières ba pare nga am ay kilifa diine yu bari yoo xam ni ñoo ñaanal réew mi ba réew mi kon war ngeen a mën a boole seen doole juboo defar seen réew réew mi buñ ko defaree mu dox ñëppay gis seen bopp ci biir mais fexé nañ ba créer ben état bo xamni bi nit ñi dañoo bañanté c'est la haine ñi ñi yéet nit dana dé sax nit ñi di di bàkku ngay dem di jouer ci coupe d'afrique am ñoo xamni ne ña nga naan yàlla buñ gagné coupe bi parce que buñu gagné coupe bi président bi daf ci daf ci daf ci profito légui ñeneen ñi ñi nga naan ki sa adversaire la rëqal ba bala mo jóg ngeen commencé di gojjanti di doranté di saganté te bi ngeen koy def réew mi mi ngi adina bi mi ngi continuer di dox di difficile yow mi nek opposition am nga ay xalé à xamni à yaa à leen di xéxlo ci xalé yi buñu ñu duñu añ duñu rër amuñu emploi seeni yaay amuñu dara yow mi nek ci pouvoir am na ay xalé yo xamni ni ñoo di la xéxal di dem té tey ji bu duñu añ duñu def le malheur qu'il y a des jeunes c'est la chose la mieux partagée aussi bien les jeunes de l'opposition que les jeunes du pouvoir sont dans la souffrance lañ nek chômage lañ nek espoir liñuy dundé ni dañuy nekkoon àndoon ak pouvoir bi ba yàgg xeexal président Macky Sall bu mu yéeg ñu dikk nous seen bopp ci nguur gi ñu mer dem déverser seen mer ci ki nekk ci opposition bi. ki nekkoon ci opposition bi bi muy soog a jóg moom ay xale ñoo gisul seen bopp ci dikk bëgg changement yaakaar ne kii bu yéegee danaa gis sama bopp donc ñoom ñëpp ay intérêt moo leen tax mais suñu nekkee ay jeunes yoo xam ne ñoo war assurer relève bi ñoom lañ war liggéeyal yow am nga ca ñoom amaguñu war nañu am kër war nañu am sax fu nu teg seen benn boutique pour jéem a liggéey ñooñu da nga leen war a xalaat su ko defee ngeen bàyyi seen